lan moo jot lan moo jot looy wax waa koñ ba fooy pressé ah, eh, eh, eh, wax leen kii dëgg wax leen kii dëgg fii du ku ñëw pressé lu ñuy wax lu ñuy wax dafa war a pressé waa kii dafa war a pressé ok ah ah, ah ah ah mais Balla waa kii yow tey yàq spectacle bi la tax a jug. da nga jóg ci micro. takkal kiiwal sa micro yow yaay kan. man la ale kor jànk jéeg-jéeg ji góor yaay karal ma neex a dëkkal jéeg présenté rafet sourire. amiin aba amiin aba. waaw ah, ok ok léegi. léegi yéen a ko ci kaw seen bi. yéen a ko yégal jëluma benn responsabilité. programme nañ suñu programme ba pare. ngeen forcé ko ba mu yéeg ci kaw seen bi donc yéen gérer leen ko léegi yow mën ngaa prester. mais Abba da may présenté ni nga présenté. Eh! non non Abba da nga may présenté. ah waa booy bi. attends j'arrive non j'arrive j'arrive attends j'arrive léegi. présenté ma Abba noo tudd. Alain kor jank jeeg jeeg ji góor yaay karal ma neex a dëkkal jeeg présenté rafet sourire. foo dëkk. Thiès laa dëkk. Abba li ci gën a neex mooy bu may boo may présenté damaa bëgg nga wax leen ni clinique laa juddoo. tàccu leen loolu tàccu leen yéen tàccu leen ndànk ndànk waaye leen ba si ngeen tàccu eh, mën ngaa tekki mën ngaa tekki pour boo mënee xam nga ok ok génnal Alain yuuxul yuuxul ci kaw liggéey de émission bi gën a désorganisé ci àdduna ngi nii toog fee Alain laa tudd Thiès laa dëkk doomu yaay Karol ak yaay Fatou ñun sa yaay lu suñu yoon nee nañ ñu présenté ko te buñ koy présenté bu ñu fàttee wax ni eh waay Samba <laughs> eh man ki dama koo ñee man dama koo ñee maternité yëmbal laa juddoo maternité cinq étoiles billahi ndax booy traversé foofu dafa amoon ndox ñu teg fa cinq briques brique bu ne ñu desee ne fa étoile cinq étoiles ku faale tàccu leen xale bi bëgg a ñëw xale bi Cees la dëkk toj na Pire toj na Tivaouane toj na Ngaye yëngal na fi nga xam ni moom mooy sous région bi waaye toj na Petite Côte bi xale bi mooy doomu yaay Karol xale bi ci clinique la juddoo xale bi mooy Alain tàccu leen Alain. merci beaucoup merci beaucoup kontaan la ma bëggoon am naa ko de e eh, maire koñ ba yëpp laa wax damay dem abaso ñu dajaleel ma jox ma vingt cinq mille ndeysaan salaamaaleykum waa boor bi salaamaaleykum waa comme ni ma ko waxee sànq man la Alain kor jànk jeeg-jeeg ji yaay karal ma neex dëkkal jekk président rafet sourire am nañu man a neex ndig nag waaye dama koy bañ bu leen di ko wax et eh, damaa yàgg voyagé nag dama yàgg voyagé macha allah voyagé naa dem naa Europe Asie dem naa Océanie lépp ci sama biir xel lépp def naa ko biir xel eh mais daf tey eh différence su nit ku ñuul ak tubaab laa leen di expliquer non non non tubaab tubaab avancé na tubaab raw nanu et eh, demal Europe Europe ngay gis góor gu dajalee ndeysaan ba am njëgu kado gelam kado dem jox ko ko mais gel bi day kontaan eh Inde dem gis indien bu dajalee ndeysaan ba am kopparam jëndal gelam kado gel ba woo koñ bi ñu génnee indien yi géwélu indien moo gën a metti ñu génnee sabaru indien yi teg claviste bi génnee git clavier bi ñëw eh gel bi fas yéenee woyam waajal vay di ngari din capi calinin eh trois heures de temps ñu koy woy eh fii Dakar Moussa Fall trois mois mu ngi dajale jëndal gelam seenu or réaction gel première réaction eh waay ndaw Samba foofa tooc waaye bébé e bébé lii dafa fees de e bébé lii mu ngi tuuru de yow waa e mu ngi toog yow e e non tubaab raw nañu de raw nañu de non e yow France France ci boppam ngay gis xale bu nelaw ba deux heures du matin gént dem yee yaay ji maman j'ai un yaay ji dalal ko yow oh, moom bébé couche-toi fii Sénégal fii fii Sénégal papis Papis nelaw na ba deux heures du matin gént dem yee yaay ji yaay yaay dama gént gént bu bon yaay dama gént sama papa takk ñaareel rek yaay ji xët ko da ngaa dof yow gisoo heure bi jot eh, e tëddi laa wax ee eh, eh, Papis bàyyiwul de ee bàyyiwul de yaay yaay gént gi yemul foofu de dama gént sama ñaareelu papi gaynde dañ koy dàq rek yaay ji na ko tëddal fii àggali gént gi laa wax na ko gaynde ki lekk na ko lekk non eh non dafa metti de eh xale jigéen Sénégal nag xale jigéen Sénégal ngay gis xale bu jigéen day ndeysaan bu ci waxtaan ak copain am ndeysaan WhatsApp day wax ndeysaan ba paasam jeex am na complexe naan sama paas jeex na day jékki-jékki rek envoyé ko message ay waay waa orange waay sàcc nañ sama paas yow envoyé ma quelques mots non xale jigéen Sénégal dañu doy waar eh, eh xale jigéen Sénégal ana ana ana góor ñu bëgg jigéen ju rëy ana góor ñu bëgg jigéen ju rëy fii amul ah yow kese maa ngi yow ñoo bokk équipe dama jigéen ju sew waxuma ci dara dara dara non eh man punkal rek damaa ndaw punkal rek e ana ana ana jigéen e yow ndeysaan bul gis sa bopp baal ma bul gis sa bopp eh eh problème bi bañ ba ma jigéen ju sew de c'est-à-dire bu may génn ak jigéen ju sew du ma xam ndax lekk la soxla wala mbëggeel damay hésité damay nefa di jiixi jaax dama am benn copine sama copine bi dafa sew gàtt gàtt 32 kilos lay pesé sama copine bee feebar un jour woo ma téléphone ni ma Alain ngir yàlla doo ñëw kër gi nga gunge ma hôpital dama feebar ba sonn et eh, ma dagg samay activité dem jëli ko trois heures de temps muy mag yow pour dem hôpital ma ne ko waaye yow ndey astu gaawal dañuy dem mu ne ma eh booy génn war a rafet defal ndànk dimbali ma eh, ma xaar ndey asu trois heures de temps ñu dem hôpital docteur bi ne ko s'il te plaît madame da ngay yéeg ci balance bi ñu xool après ma de daal lay consulter ndey asu yéeg ci balance bi pesé docteur bi xool nday asu xam ne lii dafa normal docteur bi ne ko s'il te plaît mademoiselle wàccal nga dem sël mu ñëwaat nday asu wàcc dem sël mu ñëwaat yéeg ci balance bi wa waat 32 kilos laaj leen ma lu tax ne leen ma lan moo tax maquillage ba mu defoon moo diis eh non eh falaa génne hôpital ba dem ñibbi eh oh caaw caaw oh baax a baax a baax a baax eh, tàccu leen maa ne